liku liku rendre hommage muy mustapha mbay <coughs> mustapha mbay biñu mujjé mujjee gisante maa ko man bima ma mujjee ak ah waaw kon waaw néna moko féké waaw mako jélé walé mbour ci sama auto nuy waxtaan baag ci Touba booba la ko la ko mujjé gis ba yalla dogal lim dogal waye ñi ñuy tuddé ay ñuy TikTok ak ñii ñuy tuddee ñuy sinep il faut que ngeen xool ci Moustapha moomu dara nekku fi de mais benn vidéo booy dégg dégg ca lu ñaaw amut luy reeloo nit luy tax nit jëllu siwaat rek moo ci nekk loolu nag ginnaaw yéen ñi di ay ndaw yéen a dem ba di ko fàttaliku daan ànd ak moom te moom day bu masaa yëkkati xasiida nga yëg ne xasiida la yëkkati man li may seere ci moom man naa ko seere ndax dund naa ko moom lu yàgg ay situation yu bari ma xam ko ci moom muy nit ku baax nit ku am yitte nit ku woyof nit ku mën a farse koo xam ne ku yaatu la xale bu ndaw mën na koo fanaanal béréb baa mu yendal ko moom Moustapha loolu nag mooy jikko ju baax tey jii bu demee bañ di ko fàttaliku jël bis bu ñuy sante Serigne Touba di ci delloo jukkal Cheikh Abdou Lahad di ko ci rendre hommage loolu mooy wane ne lam doon wax démb ak lam doon def ñaawut kon ñi ne ci euh, jumtukaay yooyu di ko def bu ñu jàpp ne rek star la star mooy lan lan lay signifier luy star ku ñëpp xam amul ku am lépp amul ku moom lépp amul loo loo bari la bari la romb kër goo moomut loo bari la bari la romb oto boobu moomut lo bari bari jigen romb ko dul sa soxna lolou ken dajul <laughs> yalla rek moy ki daj lepp waye bëgg ay vie bu mu tax ngay wax wax jo xane bo fi bayiko ko bu ëllëgee ñu jël la sa njabot ne fi ñu ne sa bàyyi ni la melone day sa dom bu jàngee ba am niveau intellectuel day xamne yow sa day xamne baye mom ko soufé ko soufé dimension la won rek te léegi li des ci aduna ak kees a ngi ni kess gi di portable ngi nii go xamne ku ci xës tab bi li des ci àdduna duutoo génn ku ci tab bi àdduna lay gën a avancé duutoo génn kon na nga xam yow li ngay wax lu mu doon xew na nag xew na xew ma lu ko andi mais xew na muy teg ak Senab ak nangam xew na mais nit ki mën na cee mën na cee liggéey def ci lu baax maa ngi gis xumba mii léegi-léegi mu ne man xumba maa ko wax wala mu ne góor day wëndeelu dëkk sàngam na c'est mais saaga moo baaxul saaga ak wane lu ñaaw amul benn njariñ ak di fecc nag nekk di fecc ak euh, ñaareel bi maa ngi gën a insister yi ñu dëkk Touba ku dëkk tuuba yemoo ku dëkk feneen bari na kuy dem di dëkki Touba te xàmmewul zahir sa ak baatin ba ngir ku fa jaamu yàlla ful sa may ya waaye ku fa mooy yàlla ful sa mooy ya kok Touba moom bu waxee dañuy xam ne Touba la dëkk bu jëfee ñu xam ne Touba la dëkk kon ni mu Moustapha Mbaye meloon mbooleem ku ne ci loolu de ko mais man ngay reetaan loolu nit ñi saay saay siid yi muy les wahabis et les salafis ñooñu moom attaqué leen mais attaqué leen wàññiwul dara parce que ay saay-saay yuy làqatu da caa nekk ñooñu moom la sëñ Tuubaa waxoon ne ba muy sànni Musaylimatul Kadaab di wax na dal Musaylimatul Kadaab ii na jaaraa Musaylima torox na ba muy jéem a def yonent bi moroom taxaw na ci digg mbooloo def nangam xas ko ba ñu ne sëñ bi sa xalima gi de daawul yàbbi lu mel nii dafa dafa wax ne ku nunguwul nii sama waa ji mel Rasulullaay doo xam sama teggi ni xalima kon ku nunguwul dayeb sëñ Tuubaa ak ki sëñ Tuubaa doon moom man nga baña xam teggini ni wax waaye nga bayi ko bàyyi ko xel bu baax bayyi wax ju ñaaw ji man ngeen ci liggey yene ngi ci ñi ci bari ñi ngi leen ci xam te lu waaye wax nga diko contrôler parce que ma ngi gis li ñuy tudde war moy fen moy fen nga rek war mom moy fen nga rek ndax da ngay signaler gauche ñu dila xaar nga jadd droite ah dana taw suba maam weer tëwut ah li nga waxoon lu mu doon di way daan diw ka waroon a daan nu daan ko ah lu xew <laughs> élection yi du am mu am lu xew coupe bi di ñëw mu ñëw lu xew kon bëgg ay ku la gis te bu ëllëgee dañ koy teg say doom na kii mooy sa baay am na année boo xam ne lii moo waroon am sa baay waxoon lii amut lii moo am moo xam ne baayam wax ko du am nañ sóoraale nit ñi seen njaboot gii ñëw ëllëg ku top li rek sama xol sedd na gaa yi bég naa ci yow ak ma ngi top sa TikTok ak ma ngi kontaan ci abonné yi mais il faut réfléchir nit day expérience ci limi def nak ko xol mustafa da nan dem fekk am mbeur mu song ko wonne ma mu am na ma combat mais loolu da ngay reetaan wala mu ne ah nangam de ak yooyoo amna ci ndeysaan nga gis loolu nit ki reetaan ja yëf de ak yooyoo amna wala magal gi nangam wala yoyu wax yu am solo la Moustapha Mbaye daan wax te benn dérapage amu ci yalla nako yalla yàlla yalla yalla tek loxo ci njabotam Abdou Lahad def nga lu rafet yawit def nga lu bax ndax ku ne xamone na sa diggante ak Moustapha Mbaye kon jëf nga jëf ju rafet yalla na la yalla fay yalla na yalla dëgëral yalla na yalla doli xéewal te taxawu len ngeen baal ma euh, dama mënul ñàkk a ñëw fekke ci jotaay bi ndax ñi ne ci yef yi Sadji Gana